ñu ngi ñu nuyu mbokk yëpp di leen ziara di leen masawu ah, di leen jotal njaal nag eh, ci sunu baay bu tedd bi nga xam ne moo fi bàyyeekoo di sëñ maam Ousmane Sy bu sunu maam Alhaaji Abdou Aziz Sy radiyallahu taala anhu eh, tabarakallahu nekkoon koo xam ni macha allah ku yàlla baaxaloon te ku yàlla baaxal woon itam mu nekkoon koo xam ni ci wàllu xam-xam. yàlla may na ko fasaaxa boo xam ne nii macha allah boo mosaan dégg ay ma rek da nga xam ne kii ku yàlla borom jagle yàlla la. tabaarakallaahu moo tax may wax ne toujours at yu gudd fa nekkul ci at yu bare yàlla dafa am lu mu fi indee. tabaarakallaahu loolu mu fi indee nag boo ko réalisé tabaarakallaahu nga xam ne so sa sa loo loo gàtt loo néew néew ay fan sa dund dund bu jag la. yàlla moo ne wa wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li ya'buduuni ñu nit ak jinne lu dul ñu jaamu te bokkoon na ci nga xam ne ñu gindee xeet wi di ginde askan bi ci yoonu siraatul mustaqim kon nag ñu ngi sant ñu ñu noon dong dogalu yàlla ndax la sëriñ ci waxoon rek nee na bu yàlla paree ci yow nee na melentaan sax mën na laa bu la màttee nga dee waaye bu yàlla pare wu ci yow bu la ñëw joggi woon nga jóg doxi say soxla kon nag kii yàlla moo pare ci moom la ko bi di waxee rek wallaahu yaxkum laa mu aqiba li xukmihi wa huwa sariul xisaab yàlla mooy atte te yàlla bu xasee atte kenn du ni lu tax moo moom moo sañ moo def moo tax maam Seydi Haaji Maalik radiyallaahu taala wax ni alaa farda maa yaxdi illaahu bi mulkihi fa fiihi ridaaman bil mutii ay yusiibu alaa dama ni alaa waawee farda na nga nangu farda na nga gërëm maa la nga xam ne di dogal na ko illaahu borom bi bi mulkihi ci nguuram ba fii nekk na ci nangu dogal googu dinaa mën nga rëyoon ka xam ni gis bu dana yool mu ti ci topp ko kon ñu dégg ci ni lakk euh, nangu dogal yàlla lakk na ngërëmal yàlla kon nag fa tabaarakallaahu mu nekkoon ku yàlla jàppandi lool ku yàlla ku bëggoon mbokk bëggoon maamam Seydi Hadji Malick bëggoon nag diine yëpp ñoo ko sopp ndax fa tabaarakallaahu fu dee am na fa accès foo ko gis rek ku ko ku ne maam Ousmane ko sama xarit la kooku nag yàlla ko jag jagle jagleem la jagle yàlla yàlla jagleel ko ko tabaarakallaahu ba tax na wax dëgg yàlla ah ñi ngi nangu dogal yàlla di ñaan yàlla rek yàlla na dajeeg maamam euh, Seydi Hadji Malick ak i woy juróom sa maam Alaaji Abdou Aziz ak ak ay woy ak ak maam Seydi Hadji Malick ak ak mbo njaboot Seydi Hadji Malick yëpp ca barzaaku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag yàlla na yàlla mm, dolli sutura si tey li li li yàlla doon moo doon conférence bi nga xam ne at mu jot moo ko baaxoon daan def ginnaaw Alaaji Abdou ah, kilifa yi joxoon ko ci ndigal ak mu jot mu koy def ci weeru koor ah yàlla dogal ni tey jii la woon conférence bi nga fekk at mu jot ah tabaarkalla yàlla tey nag mu bis conférence jàpp ci lañ koy ñaanal yàlla kon nag loolu yëpp sant yàlla la ma ne bi ñu waxee ñu ni ah euh, conférence bi ak tombek euh, génn addunaam ah ma ni kon ñaari ñaar yu daje la ndigal ak dogal am mosoon na am ci gàmm gàmmu Cees Euh, si waa kër si Moussa dafa gàmmu ji def benn convoi dem di dem Thiès ci biir convoi bi am accident góor gi Tafsir Diop bi nga xam ne moo mooy waajuru ancien maire du Tivaouane El Hadj El Hadj Malick Diop eh, ci biir accident bi ñu naan ndax dañuy fomm gàmmu gi wala déet Serigne Moussa ni la ëpp naa def ndax ndigal ak dogal bu daje la gàmmu gi ndigal la déggi dogal la conférence bi ndigal la ah léegi dogal la ñoo de benn waru empêché moroom kon na chance am la ci biir conférence bi nga xam ne moom lañ tëraloon yàlla dogal ñu ñaanal ko ci yàlla amu daje njëggalal yàlla kon na yàlla yàlla def dee mu naf laayam eh, yàlla naka yàlla xare àjjana mu daje ak ay maamam ñi mu bàyyi ginnaaw yàlla teg ci ñoom loxoom ba tabaarakallaahu lépp lu mu daan taxawee yàlla wuutul ko ndax suñu maam sëñ ba sëñ Babacar ah, bi sëñ Njóoba ne lewee da am benn mag bu ko ni ndax daa amati ku mel ni Njóoba mu ne ko ah de kenn la woon ci Babacar waaye yàlla moom bëri ni Njóoba kon nag fa tawa yàlla na ko yàlla wuutul boppam ndax yàlla ku mu wuutu gën la kon nag yàlla yàlla wuutul boppam ci njaboot bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu sayidina muhammadin assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñu wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci lii nga xam ne yàlla defati na ko ab jaam sëriñ maam Ousmane Seck ibnu Cheikh Al Hadj Abdoul Al Marhoum doomu góor yàlla yi woon ci mag ak euh, rakku xalifa bi la Sëriñ Babacar waaye tamit di jaar maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh yàlla defati la mu daan def rek euh, dogal ba nga xam ne daloon na ci sallallahu alayhi wa sallam boobu la yàlla indi mu dal ci kaw mu ñëw dogal boobu la yàlla indi mu dal ci kaw maam ak sunu beneen bopp di ko wax alxaaji Kabir Diop di doomu soxna Umu Saar di doomu itamit di sët ci Seydil Xaaji Malik tabaarakallaahu moom itamit mu génn àdduna ñu leen ko jaale ñoom ñaar ñëpp maam Ousmane nag fii la nekkoon ci recommandé fii ci kër maam Abdoul Aziz bi nekk ci wetu Abbas Ndaw nekkoon wéyu bu baax ci ñun nekkoon itamit ku bari xam-xam nekkoon ku bari ay déggin ak i xorma waaye yàlla euh, bi mu fédération mu dogalee ay mbiram ci moom ñu nangu ko ñu nangu ko bu baax a baax baax nga xam ne almawtu yaati ba'da tan ah. waaw euh, yàlla nag euh, bu ndi indee ndogalam ah. jaam bi la ko war rek mooy mu sant yàlla ci biir sant googu nag ñu ngi ñaan moom sunu borom subhanahu wa taala moom maam Ousmane moom Dabakh yàlla na ko yàlla yéegal ci barsax Cheikhouna Tijani ñu ngi koy jaale mbooleem njabootu Seydil Hadji Malick rawatina alxalifa Cheikh Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour ak njaboot gi yëpp di ko jaale itamit nag surtout sunu baay alxaji Malick si Maodo di ko jaale tamit sunu baay Serigne Babacar si Abdoul Aziz ne tamit di ko jaale ñëpp mboolem njabootu Serigne Hadj Malick ci góor ak ci jigéen ñu ngi leen koy jaale waaye nag surtout ñu na ko tarixa Cheikhouna nga xam ne tey mën wax ne kenn la ci woon ndax yàlla defal na ko sutura moom moom Ousmane moomu lépp lépp lépp Cheikh Hadj Abdoul Aziz la moom Ousmane ci xorma ci baax ak ci ay teggin. ak Amira Ousmane lamboo woon na ko yooyu. waaye tamit li gëmoon li ma gënoon a yéem ci moom. mooy wàcce gi mu wàcce woon boppam. ba moom ci boppam ci ay kàddoom daan la wax ne. baayam Cheikh Hadj Abdou Aziz yal na yàlla dolli ko leer moo ko daan wax ne. maam man de yàlla dogal na képp koo xam ne kii. yalla jaaral na ma ci moom jaam yalla yalla ay jaam ngeen na ngeen xamne ay jaam ngeen mam Ousmane dan na wax kaddu yoy lu bare bare bare bare te ay jaam ngeen nak baat boobu nonu mom mam Ousmane dundoon na ko dundoon na ko fii ak ñun boko fekk mu ngi wacc bopam jox ci magami jox cër kep ko xamni ki rek kilifa diine nga rek mam Ousmane jox na ba tax na dal ñu ngi koy ñaanal yalla te raay bu ca wetu mbaay ca Tiwaawan yàlla na ko gënal bépp tataay bu mu mosoon def ñu jaale ko ñëpp eh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, li jiitu mooy su fi nit jógee dara desu fi lu dul ñaanal ko ñaan la soxla fu mu nekk te yaakaar naa ne dëj bi dëju diina yëpp la waa kër diine yëpp la demal surtout nag waa kër Cheikh Oumar waa kër Cheikh Oumar ak waa kër Alaaji Malik loolu benn kër la lu fa xew rek xew na ci beneen kër gi loolu moo tax nag ñu teewal fi waa kër Cheikh Oumar yëpp ci ndigalu xalifa bi amiral muminina Cheikh Mouhamadul Bachir bu zamanina donc xam ne ne ku fi jóge niteem ak diineem ak woyofam ak di doom àddina ñëpp xamoon nañu nu mu mel dara intéressé wu ko woon lu dul li nga xam ne leen ndono maamaam bi mu fi bàyyi taxaw ci teg ci tànkam kenn xamewu ko lu dul jàkka ba ak wasifa bi ak xadara bi kon nag ku mel noonu noonu nag su fi jógee incha allahu yaakaar lañ ci am ci boromam parce que lu mu fi doon def rek loolu la fay fekk kon nag ñu ngi leen di ñaanal yéen yëpp di ñaanal Sénégal yëpp di ñaanal tariixa yëpp di naanal nag xalifa bi Seydi Mouhamadul euh, euh, sëñ Babacar Sy Mansour ñu koy ñaanal yàgg fi lool di wér te incha allahu tànk ñoom ñu ngi fi ñu ngi leen di teg bët ñu ngi ñuy xool di ñu yëg jàmm rek ay xew te ñoom fu toll nañ ci maqaama bi nga xam ne ne ku ñu ñaanal rek yàlla jéggal ko te incha allahu ñaanal na ko te yàlla dégg na ko yàlla na ko yàlla xare aljanna jërëjëf di leen koy masawu bu baax. ak umma bi yëpp. ak weeru koor gi ak fi ñu toll ci réew mi ñan message ngeen mujjee jox. ñaan yàlla rek yàlla na indi jàmm message message yu jàmm yàlla mooy yore ay changement comme nu mu changé muy changé temps bi di changé bés yi di changé guddi defaat ko bëccëg changé bëccëg génne ci guddi noonu lay changé jamono tamit li may ñaan rek mooy lu yàlla soppi tamit. indi leneen lépp lu mu indi rek nit ñi nañu xam loolu la yàlla def ñu nangu ko ñu xam ne na njëriñ la kuy yóbbu kuy yóbbu réew mi yàlla koy tànn su yàlla tànnee nag jaamu yàlla dafa war a nangu yàlla nañ yàlla may lu yàlla def rek ñun ñëpp ñu ànd ci senegal jàmm rek la soxla te yàlla na yàlla indi jàmm jërë ngeen jëf yéen tamit ñu ngi leen di ñaanal ci seen taxawaay euh, gis nañu ni ngeen taxawee ci diine bi dara ñoru len luddul fessel mbiru diine kuy fessel mbiru yàlla nak yàlla fessel mbiram jërë ngeen jëf di sunu mbokk nag ci ñu ngi wax nabu bu jàmm yàlla nako yàlla bi ngi asaabathum nabu jere jëf may leen ko mu jàmm may leen nabu mu jàmm khalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul al muqtadiuna Mamadou Ndoye coordination de Tidiane. ne loolu nag. bu Dakar. yàlla moo ko wax moo moo fi teewal. am na loo xam ni. président coordination kenn sañu ko. Cheikh Mati yàlla yàlla nag. moo ñu joxoon ñoom ñuy organiser gourmet journée Cheikh Mati Tidiane fii ci grande mosquée. ñëw nañu jàll si loolu yi wàcc nag ci moom ci ñun. waaye dañ koy sante yàlla. bële la ñuy jàll. delloo ko sunu boroom. ñaan yàlla subhanahu wa taala su ku nuyoo jaale rek jàll ku nuyoo jaale jàll muy sunu sëriñ Pape Sëriñ Maam Ousmane Sy Dabakh di sunu soppe ku nuyoo jaale jàll yàlla nu yàlla wuutu délégation fayal nu ñëwul te yàlla yokku leeram yeesal yërmande ku gis bisam bii nga xam ni rek borom bi jële woon soppe ñëpp la ndax ku nekk jóge na ci Sénégal ci àdduna ñëw ku jaale yàlla ndax moom jaaleegul nañu yaatalante ak way bu baax ba Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz te nag yonent bi sallallahu wa sallam moo jàngale woon kama tuddiinu kon nag nit la mu lebre la nu koy fay kon nag ñu ngi sant mbooleem fu délégation jóge ngir ñëw fekkee si lii mu ñaan gu tedd gi kon yàlla buñ ko teel a fayante yàlla na apostore ni ko maam Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Dabakh daan ñaanee. di doomu kër gi di sëtu kër gi mun a dem. di borom xam-xam di ko am cofé. waaye daal ba mu yàgg mën naa am kon nag yàlla na fi yàlla boole yàggal te yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli ko Sénégal bi yëpp dolli ko ci àdduna bi yëpp te noonu it لانكو جالي باي ابي باي منصور سونو لب شيخ سيد ابو بكر امنك محمد المنصور اقرك كفيل شيخ الحاج مالك عبد العزيز دي سونو ويجور دافنا سي موم قصيده موم قصيده ييبي ييبي سونو لب دمب دي جال الحاج جاسي باي ci yalla xam xam bu mag ba kolam toy wali yalla ba ca ci yalla may ko ci way na tete ñu nañu bàyyi xel yàlla ndax am na xew-xew yoo xam ne boo amee rek da nga xam ne lii ki ko jëf kenn rek la moo di yàlla waaye nag la mam Cheikh Alhaji Malick waxoon soo xam ni su mu def macha allah ci kattanam la ko defee ak ci xarañam sunu frère la sunu xarit la sunu sopp te du jum kooku lu mu def lu mu def rek lu rafet la kon nag mënuñu lu dul ànd ci lii di lu nag kàddu yi nga xam ne sunu wayjur bu baax wi jibal na ko fi jibal na ko fi muy Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour Abdel Aziz ak rakkam yi nga xam ni macha allah ñoo ronu bâche bi wettali ko ci ñaan gi nga xam ni ñu ngi koy ñaanal maam Serigne maam ni salaamaaleykum monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziyaara sa tànk fii nag xam naa ni tànku jaale la waaye ñu bàyyi la kàddu yi diggante ak Mame ak diine ji ak lañu xam ak Sénégal ñu ngi leen di fay di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ni nga ko waxee noonu la amee dañu fi ñëw tànku njaal ci ndigalu suñu kilifa Khalifa Ababacar Sall ak directeur de campagne am Barthélémy Toye Dias jamono yuy ne wax dañoo nekk ci yoon ñu ni mën naa leen ñëw teewal ba ñu wàññeeku ñu ñëw fii jàll si maam Ousmane moom ku nekk mën nga ko jaay sa bopp ndax boo nee maam Ousmane si njabootu Hadj Malick si suñu ay sëriñ lañu suñu ay kilifa lañu suñu yaakaar ceeg ëllëg lañu donc boo amee kenn ku wàññeeku ci njaboot rawatina maam Ousmane mi ñu tuddee maam Ousmane mag ma di nit ku baax nit ku bëgg diine nit ku bonk doomu aadama maanaam làmboo jikko yi nga xam ni moom la waajuram bu tedd ba amoon du ñu mën lu dul ñëw teew fi root si jaale ko waaye sàkku ñaan ci kilifa yi ñu fekk ba yàlla def jàmm ci réew mi te jàmm jooj jàpp nañu ni bu yàlla defee Khalifa Sall doon njiitu réew mi dana gën a law dana gën a sax ndax nitu jàmm la te ci kër gi la bokk moom ñu ngi ko tuddee sëñ Babacar Sy dégg naa ci mag ñi sax ñu ni bu mu gënee àdduna suñu maam sëñ kër si moo ko téye ko boppam muy donc xalifa Ababacar Sy Sall looloo tax ñu am ci moom yaakaar mu bokk ci kër gi am ci taxawaay am ci cofeel ak ràññeeku bu mag donc lii dal ci kër gi ci kawam la dal naam newu fi mais na ni mi fi ndax moo ma ñëwee di wax ak kilifa gi léegi rek maa ngi koy baaxee kàddu yi nga xam ni moom la waroon yëkkati mu ne mën naa ko fi teewal moom bu ñëwee dana agsi ci boppam indi njaalam wax ko kóllëre gi nga xam ne moom moom moo doxoon ak kër gi rawatina kii fi jógee maam a Ousmane si yàlla na dajeeg wajuram yu tedd ya yàlla na xippee taw si yàlla nañu yàlla taas ci seen barke ci seen barke yal na yàlla def jàmm ci réew mi ci seen barke yal na yàlla def Khalifa Sall suba ci waxtu wi ñu naan jël na ndam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ziyaare di ñaan weeru koor wii ñu um lépp luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla na ko yàlla doon yàlla mu doon suñu mujjeelu koor kenn ku nekk la nga bëgg soxal yaa ko xam la gën ci yow yàlla la gën a xam yàlla na ko yàlla def yàlla na Sénégal jëm ci kaw ci kanam ci lu baax jërëjëf. waaw ginnaaw bi ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàllaa ko sañ moo ko moom te def na ko la alxaaji Mansour waxoon ne law kaanati dunya mahalla iqamatin la aqama mu ne àdduna bu fekkoon këru saxawaay la waxuma Seydul Xaaji Malick waaye ku alaaji am fii ngay des ndax mbaax ak yiw ak lebal yàlla loo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët waaye àdduna moo nu bindoo bu yàlla soxlaa dañuy nangu ak ndogalam hmm. te nangu ko nag ak xol bu sedd rabbi xadayta fa raditu bil xada tax ku ma maa tashaata fa xukk ma ko ma daa te sëñ Babacar ne yàlla yaay dogal te loo dogal it neex nanu ndax yaay àtte num la soobee ndax buur nga borom nga loolu nag moo dal tey sëriñ maam Ousmane waaye moom it mu bàyyi woon xel bis ma man yaakaar naa duma toog une semaine yu teg te duma fi ñëw yàlla moo defoon rek mu sopp ma ngir jëm yàlla di ma woo téléphone ba barki démb maa ngi jotante ak moom mu ma doon xamal ne ma ñëw fi suba bis bi muy faatu buñ julee timis na nga fi ñëw ñu gisee ma jox la su suukaru koor maa ngi maa ngi naan ko ñun ñoo la ko war a jox yàlla dogal ba ci baar soxna Roqay woo ma ne ma sëriñ bi nee na maa fàtte woo rendez-vous bi ay 18 mu message aan ma ne ma sëriñ bi mu mujj naa noppal kon nag man moom dama ci am benn benn yëg-yëg bu doy waar boo xam ne yàlla xam ne nag musuma musuma dal ci ci ci nit ku dem barsàq mm-hmm. parce que diggante bu xat boobu ak sëriñ bi situation yi mu toll ba xalaat la ci loolu rek dafa dafa dafa dafa am beneen yëg-yëg bu ma ci am. beneen bi moom musul ragal lii lu ma fi yóbbu sama benn jigéen ñu ànd fi. ñu ñëw toog sama jigéen bi boobu mi ngi may laaj maam Ousmane man ko dafa feebar man ma dama ko gëj a gis maam tëraay bi da ko tëdd ak tëddaay personnalité. ak fulla ak ak doylu ak nangu dogalu yàlla. 2019 ba tey nga tëdd ko ci benn laal. du programme ni nga daan sagalee nit ñi ci seen bis. Mm-hmm. li la yàlla defaloon. bis dafa jot mu wax ko ay mbokk ne leen ñu bari dinañ yàqu ci man ndax man nitu yàlla la mu ne damay ñëw ci bisu jàmbur ñëw laaj nit ñi xaalis woye leen bigal leen laaj leen xaalis ñu jàpp ne xaalis bi man maa ko soxla fekk am na ku ñëw sama kër alxamis maa mu ñëw fa àllarba wax ma soxla wala jox ma ordonnance boo xam ne mënuma koo faj ma bëgg ci yéene jaamu yàlla ma ñëw ci seen bis laajal kooku xaalis jël xaalis bi jox ko ko ngir jaamoo yàlla kooku ci jaamu yàlla yi loolu moo taxoon ma ko daan def ci bis kon da nga yëg ne maam Ousmane sauvetage la woon ci ci ci tey ci njabootu Seydul xaaj Malick yëpp te daan ñu bégal ci jotaay beneen bi yàlla joxoon ko asar jeexantal boo xam ne soo ko nee jàkk sa dem ci bàyyam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh maam Abdou it tuddee ko maamam maam Ousmane bu Seydul Hadji Malick yàlla dogalit maam Ousmane di doxee cër ci mbaax ci yiw ci yaatu ci goreel ci tab dan na wax naan doon doomu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh doy na ma teraanga àddina ak alaxira kon bu ma soxlaa alalu nit rek dama koo bëgg a jaamu yàlla ci nit ku ko xamul waaye doon doomu alaaji abdou rek doy na yàlla tàggatal ma nit ku may ñëw di ma defal sama soxla àddina ak alaxira bi ñuy mujj di gisee di waxtaan wallahi alazim ci ci ci yi ci la bokk sina Omar ñaanal leen ma yàlla waaye li may ñaan rek mooy bu ma yàlla di jël na ma fekkee ma gëm ko gëm te bu dogal di wacc yalla yalla nogal gogu neex ma billahi wallahi ñol jotaay bi mu ko mujj gis wax ji la ma wax barki buma Tidiane ñaanal leen ma yalla bu ma yàlla jël si mu fekk ci man ngeum yalla gu mat te it mu fekk ci man ak nangu ndogal ah, mu ne man suma suma suma suma giseen ci woy ak maam rek doyna ma teranga waaw wallahi alazim li la ma ba ma koy naan ko si yow da ngay ñewat ci suñu bir and ak ñun ci lañ daan def wallahi li mu ne ma way ñaan leen rek benen bi mu nangu won ñaanu talib bu ne ma musuma la gis boko setse boko ne defal ma ñaan mo ne la defal ma ñaan ba nopi nga jang ñaan ci kanamam ñaanal ko mu nangu ñaan gi xetu nangu go xamne da ngay japp ne sax ki tay sa ñaan gi moko yëkëti su pare nga ne defal ma ñaan mo ne la li nga fi ñaan doylo naa ko yàlla ndax yàlla du di nangu sama ñaan ndax maag yow yëp ay jamm la moy incarné bimu incarné Cheikh Alhaji abdou Aziz dafa baax bàyyi parce que mam Abdou lii da ko bàyyi woon xel Mame Makhtar ba netti na ma ne ma mam Abdou bindon na xasida boo xam ne digganteem ak boroom la mu ne fajar gu nekk dama ko daan nafaral pour rek maam Abdou di fàttali ko bis boobu maam Abdou wax na ci biir xasida bu ne ko wa anis ilaahi ba daf ni wexsati wa xabri yow wa sen yaa walli wa nawiri mu ko nit ñi luñ may sopp sopp sopp suñ ma dencee ci bàmmeel dañ may ginnaaw maa ngi ñaan nag ëllëg man yàlla boo ma boo jëlee sa jàmm bi Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh bu dugal ko ci bàmmeel yow yàlla yëg naa ne mat nga wéttal yàlla nag ma wéttali ci sama bàmmeel bàmmeel xat na lëndëm na waaye maa ngi ñaan bàmmeel googu su ma ci dugalee yàlla na nekk lu leer nañ ci man keroog xasida bi mais toog nag maam Ousmane di ko di ko ko di ko wax mhm. di saan keroog beneen xaal la nekk mu ne góor gi kenn xamul doon waaye ñaanam googu yàlla nañu yàlla nañu dal mooy wax ne lii yàlla teg na ko ko waaye xalaatoon na bis bii tey mhm, mhm. te Serigne Cheikh nee na am na ñoo xam ne seen dem ci diine victoire la maam Ousmane demam gi tey ci lislaam victoire la ndax fukkeelu fanu koor bi muy jeex ndogu di waaj a jot te diggante boobu mu nekk ci diggante ijaaba yi yi fa nit ñi naan yàlla yàlla nangu ko boobu yàlla jël suruux nga tombeek fukki fanu yërmande yi sa premier jour guddi mi nga tombeek fukki fanu njéggal kon loolu li mu li mu dajeel am na yoo xam ne circonstance la yoo xam ne sëñ Babacar daan wax naan jàmm mën na cay dëgg àtte ci kéemtaanu yàlla te xam ne yàlla loolu mu ci dëgg njort boobu yàlla dana koy defal ak denc ci guddi gi beneen bi loo xam ne kenn yëgul ko kenn daanaka bi muy dem Tiwaawan fekk na zawiya ba fees dell soppeem magam woy juróom lépp di sëriñ Babacar Abdoul Aziz tiim maam Ousmane trois heures de temps di wax ci moom di wax li rakk la soppe la xarit la féete la sëriñ la confident la ku yàlla mayu la mu daan boole famille bi maam Ousmane daawul wax lu ñaaw daaw ko yëkkati ko ci nit daawul nangu nga xa daan wax ci nit loo wax rek koo mën a tudd ci kanamam mu baaxal ko te yëg ne moom it mu yëg ne rek gënul kenn te pourtant ñëmu gën bëri na waaye loolu day wane tegtali wilaaya bi ko yàlla defaloon kon nak tay dañuy ñaan yalla rek yalla na yalla tass ñu ci barkem njabot jum fi bayyi mu njabot gu tuuti yalla na yalla tek ci loxo ba ñoomit seen wujur fim tegon seen tank ñu tek fa seen tank ñaanel ci soxnaam soxna roqé nak borom taxaway la mhm. taxawuna mam ousmane dayiwul demul fo ñu fi nga koy fekk ci daara ji mu tok uuf njabot yépp nak ba suñu soppé yi suñu xarit ñom ngañ ba umul masakin ko tuddé parce que kër gi bo fi duggé ak waxtu bo fi dugg rek di nga fekk ñu tajal la ñam nga lekk ba suur gisee ak sëriñ bi waxtaan moom maam roqoye dalal la xeetu dalin goo xam ne da ngay xam ne moom it wax dëgg yàlla ñëpp ñàkk nañu waaye moom moo gën a ñàkk ndax maam Ousmane xaritam la woon soppeem la woon ñu yàlla moom it yàlla na ko yàlla teg teg loxo njabootam barke gi fi maam Ousmane bàyyi yàlla na sawan ci njaboot gi yëpp ci barke yonent bi salaa salaam jaal ko nag presu xadara bi yëpp nag mm-hmm. Habiba TV Malikiya TV mm-hmm. Asfiyahi mm-hmm. yeneen ñoom ñëpp ñu jàll leen ko ndax bi mu jotee it peut-être bëri na mbokk taalibe bu ci jot mhm. yéen média presse bi tey nga xam ne ci xadra bi ngeen nekk yéen a ko jotale mbokk yi ba kenn ku nekk toog ci këram ñëwul sax mhm. waaye toog na ñaan ñaanal maam Ousmane ñëpp yëgandoo dëj bi loolu it ñu sant leen ci bu baax gërëm leen te lii leen leen doyee ci xadra bi te xam ngeen li leen xadra bi di doyee ngeen nekk ci teg ci seen tànk kon yàlla na yàlla barkeel te yokk média yëpp gën a barkeel ci barke maam Cheikh Sidou Hadji Malick yëpp nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di len balu hak di len bal hak di len ziar ci wéru koor bi eh, di len jaal sunu sëriñ sunu wasila sëriñ mam Ousmane si dabax mi nga xam mo nunak fi jógee barki Dembo ndjay ñun nak noy association sop dabax bu sëriñ mam Ousmane si dabax di association bo xam ay ndaw comme ni ngeen ko gisee ni ño dajalo ca commencé ko ci réseaux sociaux ya ba bëgg ko jëmmal ñew gis suñu sëriñ eh, di sunu wasila di sunu xarit di sunu lepp sëriñ mam ousmane da dagaan ko ko mu nangul ñuko nek suñu responsable moral di ñu jox ay directive ñu karena doxal yaakar na ni malikia tv ñewon nañ fa ci 30 décembre ba doon wajal journée lancement yi dafay won fi ci kër gi eh, ci kër abdallah bi nek Medina Jakarlo centre hospitalier Abbas Ndaw ñu defoon fi conférence bu mucc ayib pour lancer euh li nga xamante mo moo doon programme association Sopp Dabakh nii nga xamante ne moom nekk ni aljuma bi passé ci lañu def suñu premier programme moy ñew ndogu ci ci xadara bi gis serigne bi waxtaan ak mom talal ko loxo mu ñaanal ñu ci li nga xamantene moy ndogu dabax yi nga xamantene mom lañuy la yalla dogal na nak lol moy suñu mujjé jotaay ak mom, mu ñaan wax ci wax ci wax yu yéme yéeg léegi la ñuy xam wax wax wax yi nekk tey wax yi tagato la won waye yimay wax yépp maa ngi ko naan señ bi di nga ñëw bok participer waaye nanguwuma tontu ci lolou lolou nak wax yalla euh ñu ngi doora xam né nitu yalla bu démé ngay doora xam ni mbirum fa tabarak wa taala ñun euh, association bi ñu ngi euh ñak nañ ñàkk nañ koo xamante ne wax dëgg yàlla lépp luñ fi organise moo ciy jiitu jàppeewul woon boppam sëriñ boo ko waxee mun la ñun dépassé nañu cadre sëriñ ak taalibe léegi nu sommes de frères ba tabaarakallaahu loolu wàccee boppam bi nga xamante ne moom la sëriñ maam Ousmane nekkee woon wallaay xaaj xanaa jaaxle rek ak ak réer ak xam ni rek ñàkk nañu koo xam ni Euh, kenn mënu koo remplacer di di ki nga xam ne comme niñ ko ko daan waxee euh, ndax dañ daan ñëw ne ko maam mu ne ñu naam mu ne ko si Malick ñun de fekkeewuñu jamono ala xamuñu ko waaye lu ci bëre li ñuy dégg ci góor gi dañ ñu koy nettali waaye bi ñu ñëwee ba sa keppaar bi dajeeg yow si lañ xam ne rek loolu nit mën na mel noonu ndax bëri na loo xam ne buñ la ko nettalee ci nit mu ci façon mbaax bu mel noonu danga naan nit mënul mel nii waye biñu dajé ak goor gi serigne mam Ousmane si lañ xamni ke lepp luy mbax li nga xamni ñu ngi koy wax ci allah jabdou rek ñun biñu ñëwé gis nañ ko ci mom waaw mom mo doon mom lañ doon xolé goor gi ndax goor gi jóge na fi askan weeg Sénégal ñëpp wéet waye ñun ñu am serigne mam Ousmane tay nak serigne mam Ousmane jóge na fi njabot gi yëpp rër nañu ñu fu ñuy tek suñu tank ndax ñak nañu ki nga xamni euh kenn mënu ko remplacer euh, mu ñu daan wax ni comme comme li comme li comme li euh, président wax léegi mu naan maam Alaaji Abdou daf ko daan wax ni yéen du ngeen ay sëriñ ay taalibe ngeen mu ne du ngeen ay taalibe ay jaam ngeen te doomu jaam jaam rek lay mën a doon euh, ànd boobu lañ daan ànd ak moom fii ci kër gi buñ ko daan fekk ak ñun doo xam sax kan mooy sëriñ bi ak kan mooy taalibe yi woyofoon lool wàcce woon boppam lool waaye ci ay waxtaanam euh, daan ñu daan nañu nettali ñu mam Abdou mu ne ñu al euh, jeudi bisub jeudi lañ ko fi jëlé fi ci kër gi yobbu ko principal mu génné aduna dimanche waye mom itam bisu jeudi lañ ko jëlé fi ci kër gi yobbu ko tiawan jëbël ko boromam. alaykum wa rahmatullah ñing leen ni nuyu bu baax di leen ziar yeen ñep xam jamono ci sa jamono ju metti la pour jël jël kàddu ndax ki nga xamanteni aiguille la won pour pour ñun mo xey xey rek ah mais alhamdulilahi rabil alamin aussi li nga xamante ni li mu waroon def si ñun yëpp def na ko muy sago ak dal donc ba nga xamante ni biñ yëgee xibaar bi teel nañ ko yëg fa tabaarakallaahu ñun tamit mobiliser wu nañ suñu biir ba yëgal ko ñiñ ko war a yëgal daal di rot si si barab bi donc sago sago bi mi ngi fi lépp mu ngi fi woon ah wax si sëriñ bi nag dafay xaw a jafe tuuti ndax ko xamanteni ni comme ni ka xaaj ibrahim waxe taxaw na ko tolni ni caatu abdou mune man sen frère la donc mom jëlon na cadre serigne bi tek fele donc pour rek nga mëna comprendre relation bi nga xamanteni mo amone digënté mom ak ñun te luñu mësa mës and and bo xamanteni ni sincérité la aussi luñu mësa mës su xolé xamné li baaxul da na dédé bayiléen li défé leen ko ni kon métti na daal jamono ji pour ñu mën a jël cadeau xam naa suñu amaatee yeneen jamono ba fekk sago gën a dellu si peut-être mën nañ amaat beneen interview boo xamante ni dinañ dugg de fond en comble suñu relation ak sëriñ bi ak euh, doxalin association bi ak association bi jamono ji li ñu nekk di dund. waaye benn message rek nag laa am boo xamante ni maa ngi koy jottali mboolem membre association bi mooy ni ni ko Souleymane Ba waxee woon keroog. ca Zawiya ba Tiwaawan ASD du dee mission bi day soog a tàmbali fii nag la ñuy soog a xamee ni sëriñ bi lim def si ñun en dix ans parce que bientôt ASD am dix ans lim def si ñun ban njeexital la am ginnaawam moom bi mu fi jógee donc samay wax ni mission bi day soog a tàmbali kon laxasuwaay laxa laxasaayu lay laajaat ndax euh, su ma fàttaay démb rek maa ngi toog di fàttaliku.

ñu mën ko yeggali incha allah flambeau bi bañ a waddee su ah, ñu bañ a mujjee poso bi mu réer. فكيف من دخل آمنوا بالله لا لا لا لا فكيف من آمنوا بالله ربنا لمن فكيف من آمنوا بالله

الدنيا على صنع مالنا فكيف من آمنوا بالله فكيف وبعد ما صديق قد من مهتد حسن الحاج مالك فكيف من آمنوا بالله ربنا كيف من آمنوا بالله ربه يمتي في الغسل والدفن كان الخلف يا لهما على فراق حديث فارج فارج سسعد الحاج لنا فكيف من آمن بالله ربي فكيف من آمن بالله ربي عباس العباس وابناه فضل ذني بالخير حد فكيف من آمن بالله فكيف من آمن بالله ربي على الهادي أسامة مع سقران واللوس جون معدود في جمعين فكيف من آمنوا بالله رضي فكيف من محمد لله ربي لقى رايحني سدر كافور بها غسلون